nañ ko composante lamb yëpp ñoo fi daje tey ji ak le CNG ñu waxtaan ci ñaari point sensibilisation ci affaire vaccination ak nan la ñu mën a def ba reprise mën a amaat encore ci làmb nit ñi nag waxtaan nañu waxtaan wu yaatu li nga ko mën lañu mën a tënk daal mooy gis nañu d'abord vaccination bi c'est important parce que ñi dañoo war a vacciner wu pour que ëllëg suñuy démarrer redémarrer euh, lamb ji au moins kuy ñëw di dugg si làmb indaale sa carte de vaccination beneen bi mooy état actuellement dafa am devoiru subventionner les promoteurs ñi nga xam ne par exemple tey comme lu ko mel ne Dakar nga xam ne ci même jour bi la yëg ni annulé nañ te fekkoon ne na dépense yi mu waroon def yëpp kooku ñu ñu ñu subventionné ko pour mu mun a tëggaat yenn promoteurs yi nga xam ne aussi dafa am nañ seen programme te régularisé woon nañu di obligation la pour état mu subventionné leen pour que ñu continuer mais ñun suñu xalaatu bopp mooy état bu développé woon tey jii lu ma deux ou trois milliards rek situation yëpp dina décan décanté wu ci problème yi nga xam ne waa làmba am nañ ko li nga xam ne nag mooy feebar bi président moo ñun moom moo ñu jàngaloon ni ñun apprenez à vivre avec le virus nit ñi comprendre nañu ba koo gis mi ngi maskam masque koo gis mi nga am gelam mi ngi raxasu distanciation yi mi ngi am kon loolu parce que bu ñu xoolee bi ñu tëjee làmb ji ak léegi est-ce que virus bi daf fee jógee nit ñaa ngi kon ne di di dund ak virus bi ñi war a dee moom même su amul woon feebar bi dañuy dee kon nañu comprendre loolu ñun sunu économie mi ngi mi ngi wàcc ndax situation yi nga xam ne noonu la ni di vivre da ngay xool programme yi nga xam ne suñu bàyyi woon par exemple le mois d'août le mois d'août ñu ñu ñu bëre combat yi ci nekk kon nag ni benn problème du am kon nag ñun li nga xam ne loolu la ñuy waxtaanee daal. mooy ñun duñu bus bousculer kenn duñu génn di sànni ay xeer duñu génn def benn manifestation mais am nañu confiance ci sunu état waxta wax ak ñoom ñoom ñu dimbale ñu parce que le milieu de la lutte est fatigué. mon père ma lay sàcc kaay kaay sa combat doon jox diggante Tapha Tine le huit bii bi nii ba ngeen yëgee ne annulation lan ngeen yëg wala report bi. mais loolu lu méttee métti la xoolal mbër mi dépense yi def pour yóbbu ko mu dem voyager ci entraîné mbër. ay porteurs de voix lañu ay support lañu ci dëkk réew mi tey Boy Niang su waree am combat bu toll ni bii mu am ni képp kuy mbokkam képp kuy xaritam képp koo xam da nga koy ñaanal yaa ngi xalaat lu la war a jox alors nga xal mi su bëri woon tey jii le huit nga fekkoon am na ñu bëri ñu am ñoo amoon yaakaar ci moom mu ngi faj seen soxla tey mënu i il recommence à zéro te xamul kañ lay bëri jiwaat kon report boobu lu méttee métti la mais nag ñun le milieu de la lutte e fra très fragile loo def ñu ne c'est des violents nangam ak nangam c'est des barbares loolu moo tax li ñu li ñu dal li mu ñuy métti métti métti ñu ngi concentré wu ci suñu ruq di xool yan moyen la ñuy def pour que ñu génn ci situation yi ñu nekk nii en tout cas lu méttee métti la te président la république ñun ci moom la ñu bokk yàgg lépp loo xamante ni ñu ngi koy demander pour le développement de la nation le milieu de la lutte mi ngi ciy dugal loxoom bu fekkee ne barki démb Ndiaye ci Covid bi. dañu ànd ak sunu ministre tutelle dem jël sunu lu ñu am ànd ak moom dem yóbbul ko ministre de la santé pourtant bu ñuy séddale euh, euh, di euh, milliards Covid ñun amuñu ci artistes am nañ ñëpp am nañu mais ñun amuñu ci kon nag ñun aussi nañu sentir ni ñun suñ ñuy pousse di ñu ba ci miir bi fa mu mujj du neex te du ay menaces yu def mais ñun ay demandes rek la def waaw. moom boo ko ci RENS DKR ñu nuyu ko fii waxtaan bi mujj satisfaire na la wala. fii. seen waxtaan fi mujj. waaw satisfaire na ma wax wax nañu ci waxu nit ñi nañu ñakku man bokk naa tey tey tey laa ñàkku fii ci stade bi li may def tamit may lancer appel Pikinois yi maa ngi lancer appel Pikinois yi tamit ñëpp de ñëw li président santaane ñu def ko mooy ñëpp ñàkku ñëw ndax ñu ubbil ñu suñu stade parce que métti na parce que maa ngi dégg si waxtaan bi sax ñu naan. diw promoteur la diw promoteur la licence promoteur bi ci turu Jimbo la nekk mais man ci waa rent Deka muy sama ñaq sama alal mu ngi ci biir kon man si laa bokk du Jimbo tey benn du ñëw doo ñëw di dagg licence yi bind rent DKR da ngay jël si turu nit ki muy Jimbo tey sama tur la waroon nekk man maa ko jël jébbal ko ci turu Jimbo pour mu leer si tey ñu nekk ci axlu làmb leer ci président CNG bii tey wax ni tey Euh, am na ñuy wax te duñu promoteur man ci rent DKR te su ma ñàkk moo nekk ci xaalis bi sama ñàkk mu ngi ci kon ci laa bokk. loolu loolu Alain confirmé ko. voilà ñun ñun ñett lañu pour ñu am licence yi il faut ñu def ko ci turu nit. ñu bëgg voilà léegi nag maa ngi koy leeral maa ngi koy leeral ni man mii tey man maa man maa ñëw jël sama sama man maa jël ne leen def leen ko ci turu Jimbo mhm. licence mun naa génne sama poche dem dagg ko. comme ñun ay famille lañu ay mag ak rakk lañu man ale Djimbo man mii maa leen dugal ci mbir mi. Mm-hmm. maa leen dugal ci lii man maa tax ñu dugal ci seen alal léegi nag lu ñuy wax mooy tey ñu jàppale ñu dimbali ñu ñun tamit ñu am lu ñu teg ci loxo mbër yi. waaw ñun lépp lu ñu financé ci làmb ji mbëri financé nañ ko parce que ñun dañoo metti le parce que ci bi la heure bii tey ñun ñëpp ñu ngi fi woon xam nga ma ci xam nga ci si gërëm suma grand xalifa ñu taxawoon yëpp taxaw ñu si parce que tamit metti na quoi nañ ñu jàppale comprendre nga ubbil ñu suñu làmb ji ñu libéré booy yi waaw loolu la ma si jaale nag suma ndijaay daf si génn dafa génn aduna démb muy Samba Sarr maa ngi koy jaale di ko jaale laay see cosaan di ko jaale pikin parce que Samba Sarr Samba Saaru adduna la si dëj laa nekk nii mais lii mënul ñàkk tey ma ñëw fii parce que suma ndijaay la mook suma yaay bokk ndey ak baay xam nga muy accident bi amoon fii oxygène maa ngi koy jaale population Pikine yëpp waaw. fu ñu vaccination lañu am est ce que pare ngeen ku ci nekk mbër bu ci nekk nga wax ak moom changer ay supporters ñu daal di vacciné wu ngir làmb ji mën a ubbiwaat. non man mënu ma mbër yi euh, écrits yi ñoo koy wax ak euh, ménage yi mais ñun ñi nga xamante ne tey ñun ñoo bokk rent Dakar dinaa ko wax Jimbo wax ko ale man man position boobu laa toll. ñun ñi tey muy staff rent DKR ku si nekk dina ñàkkaw njëkk njëkkee naa ko ci man ñakku naa fii ci arène bi te képp ku ma gis dinaa ne dinaa ñëw fexe noo ñàkkoo pour comme loolu moo loolu loolu buñ ko defee làmb ji dina ubbi bu soobee yàlla bëgg nañ ko def quoi waaw mais nag li li gën a am solo mooy tey mu ñu jox ñu ndàmpaay nañ ñu nañ ñu jox ndàmpaay parce que lii metti na trop si ñun waaw.